marhaban njëgu garab yi moo yital Walfadjri quotidien suñu naataango yi daal di sampu laaj nañu ndaxam dañuy waaja yokk yokku njëgu garab yi daanaka ci la ñu jëm li ko waral bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay Walfadjri moo di ne ni ki démb directrice générale u agence sénégalaise de régulation pharmaceutique mi doon animé ab atelier de formation mi ñu jagleel pharmacien yu ndakaaru ak Thiès moo daal di xamle ni Sénégal dong mooy réew mi nga xamante ne yokk wut ay njëgu garab yu muy jaay jàpp ko ci atum 1994 ak léegi docteur Oumou Khalsoum Ndiaye Ndaw ci biir yéenekaay Walfadjri quotidien mu ngi xamle ni arrêté 188 2023 miy joxe ndigal teg si itam doon modèle bi nga xamante ne ci la sukkandiku ngir def calcul njogu garab yi ba léegi ab coppeeku amu ci monte de bu ñu sukkandikoo ba tey ci docteur Oumou Khalsoum Ndiaye Ndaw seeni ay grossiste privé ak i pharmacien ñu ngi jànkonte ki jafe-jafe yu tara Sud Quotidien moom ab càmbar la xëyee niki tey jile jëmale ko ci fukki at ak ñaar yu président Macky def ci bopp réew mi suñu naataango yi nañu bilan président Macky Léopold Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ci lu jëm ci salfaañe loi ñàkk tënku ci ay dogal yu tukkee ci justice ya nga xamante ne arrangé wutu nguur gi donte def na ay jéego yu mucc ayib ci tabaxum juntuwaay du teene Sud Quotidien mu ngi xamle ni nguuru président Macky Sall gi bokk na ci itam li ci fës lool moo di ñàkk sàmmonte ki état de droit gi ya laas yéene kaay moom ay jafe-jafe yu nappkat yi di jànkonteel moo ko soxal suñu naataango nañu bëccëgu njagleel naqar seen njiit la Alioune Thiam daal defu plaidoyer bu am solo jëmale ko ci napp gi teg si itam tukki gu jaarat yoon gi nga xamante ne nee ñàkkum ressource halieutique yi dong moo ko waral abu coppeeku gu ñu nemmeeku ci xarkanamu politiku Sénégal gi moo soxal yéenikaayu enquête mi xamle ni jamono jile tembe ci reñu fonctionnaire yi la nekkee ay jàngalekat ay avocat ak ñeneen ak ñeneen la doon gën a ràññee ci politique gi waaye suñu naataango yi ñu ay inspecteur des impôts et des domaines ay jàngalekat ak ñeneen ñuy liggéey ci nguur gi ci lu jëm ci wàllum engagement politique l'observateur daal dina ñëwaat ci lu lees waxut jëmale ko ci lu muy tuddee la grande offensive des inspecteurs des domaines ab nokki bu bees la ñu di indi ci géopolitique gi waral yéeni kaa groupe Futurs Médias gi nañu tendance bu ni mel nag mu ngi wéy di gën di law ak bile tànneefu Bassirou Diomaye Faye jëmale ko ci élection présidentielle yi suñu naataango yi ñu xam xamle ni liste inspecteur des impôts et domaines yu bëgg a jiite réew mi di Sénégal daa dina yokk moo xam ci ñu far ci nguur gi wala ci opposition bi jàngeen jëf